Cheikh Sow chef de programme artisanat de production à la DRFJ. Nous sommes dañu ñëwoon Kaolack pour euh, procéder cérémonie de remise des équipements de protection individuelle C'est ce mu nekk projet de dañ euh, la euh, banque africaine de développement l'agence française de développement et DRFJ. donc ce projet a mu am volet boo accompagnement non financier Nous avons ñuy jàppale suñu bénéficiaires de protection individuelle parce que nous dañu constaté le terrain bi dafa beaucoup accident de travail Et parce que nous avons am des fois qui permettent permettent protéger les tâches qui sur le terrain ci loolu à travers aussi les bailleurs ci mettons en place ligne lignes pour accompagner les bénéficiaires et pour ñu manager a jot ci matériel yooyu te ba pare du ñu fay dara. ci unité de stockage yi déjà un programme phare travail installé à travers le pays ay unité de stockage yo xamante dina mëna recevoir ba paré dinañ ci mëna denc produit agricole wala produit yi nga xam ne nañ koy récolter té muy yàqu té lolu xamna suñu génné fi dinañ évoluer dinañ évaluer ensemble ak euh, bénéfice bénéficiaires yi nga xamante ne yëkkati nañu cadre euh, googu pour évaluer ensemble xol nañ lañ koy mettre en place parce que commencé nañ ko ci yenen région donc je pense que fini. euh, autorités yi dinañ ci ñëwaat te ñun aussi dinañ ci ñëwaat ak ñoom pour gën a évaluer gana xam exactement lan lañ bëgg. man maa ngi tudd Adama Samb di wax ci turu artisan yi euh, ñun ñu ngi nekk production xorom am na fi ay ay menuisier am na fi ñu nekk ci poissonnerie bi ñëpp ñi nga xam ne ay récipiendaires lañ ñi nga xam ne vraiment DER dañ leen accompagner euh, ci li ma xam ñun euh, secteur xorom vraiment DER def ñu ñëw fekk ñu vraiment ci secteur bu nekk en léthargie vraiment mu dimbalé ñu indil ñu ñu ay formation formaliser ñu aussi euh, secteur bi vraiment en pleine expansion parce que DER non seulement dafa diagnostiquer suñu problème euh, indil ñu yuñ ko mais ñu ak ay clients ñuy jënd suñu xorom ba vraiment bi yegg avant di

Euh, ñu bëggoon vraiment ñu may ñu ay piste de production bariwul ci ñetti région yëpp matul quatre-vingts kilomètres de de piste vraiment ñu dimbali ñu piste parce que genn wàllu xorom bi ñuy liggéey dafay yàqu bu ñu mënee am aussi ay magasin de stockage bu ñuy denc suñu xorom vraiment dinañu gënal ñu wax ñaax waa DER yi jàppale bi baax na trop mais ñu continuer ko ak ñun ci secteur yi parce que secteur bu ñu financé di ñaax aussi vraiment suñu suma suma xarit producteurs yi artisans yi vraiment bor yi ñu deer lebal ay bor la ñu mën a fay ndax ñeneen mën a am vraiment loolu mu nekk lu am solo li ñu lebal dañ ñu koo lebal ñu ngi liggéey vraiment dinañu fay ñu mën a jox ñeneen affaire bi mën a tasaaroo mën a yegg ci ñëpp. matériel de protection vraiment lu am solo ci ñun la parce que DER ba mu ñu financé ba léegi mi ñuy topp vraiment di xool si ñuy problème parce que ñun ni ñuy liggéeyee que muy menuisier yi muy ñu nekk ci pourcentage yi muy xorom vraiment li ñuy liggéey day yàq ay loxo. day yak ay cieur ñu jox ñu vraiment ay EPI équipement de protection individuelle muy ay bot ay verre ay gants yu ñu mëna sol di ko liggéey loolu lu am solo lu ama am solo la di gërëm wa DER vraiment ñu ngi top ñu ngi sétu ñu ngi xol suñu problème di ñaax vraiment ñi nga xamné ño jot affaire bi luñ ñu may la vraiment di lu rafet lu DER def mais matériel bi pour ñu sam ko parce que suñu ndariñ la nañ ko sam bu ñu liggéeyee ba wacc raxas bam set ah bu bu ñu waree liggéey mën ko jëlat mais buñ ñu joxee mbir pour ñu ci liggéey ñu sagané ko mu salté tilim vraiment te ñu li ñuy def nek produit alimentaire vraiment lolu yanul mana du du du lu war moy vraiment nañ topoto affaire bi topoto matériel bi ñom ñu mën ci sawar mën ñu indi leneen.